يا من يجيب رد الهاو بحق لا إله إلا الله يا من يجيب العبد إن دعاه بحق لا إله إلا الله يا من يجيب العبد إن دعاه بحق لا إله إلا الله وحق من أرسلته يا الله للعالمين رحمة يا الله أتيت باب الدر الكريم داعيا مستغفرا وتائبا وراهيا منك الإجابة بجاه أحمده صل عليه ربنا ومجدي وآلي وصحبي والخلفاء وآلي وصحبه والخلفاء الراشدين المهديين الحنفاء بعد التوسل بجاهي أقول إليك يا العباد كل سول نحمدك اللهم ذا النعماء يا باسط اليدين بالعطاء ودافع الكروب والخطوب ونالنا ساتر العيوب بما بي أنعمت من آلائي تفضلا بدون ما استثنائي تفضلا لك الثناء والحمد رب كما لك العلا والمجد حمدا دوام ملكك العظيم يدوب يا ذا الكريم العميم مصليا على النبي المصطفى والآل أهدي والآل والأصحاب الاصطفاء أكرم بي من سيد حمولي أبا البرايا والد البتول ndeysaan jërëjëf mbokk internet yi jërëjëf mbokk jullit yi ñoo ngi leen nuyu di leen ndokkel waaye di leen ziar di dellu sant sunu borom di julli ci alayhi salaatu wasalaam waaye di ziar ak ndokkeel xulafa yi ne ci réew mi yëpp di ca jiital ak Seydi Boubacar Sy ibnu Cheikh Abdoul Mansour Bal Qawmi di ñaan yàlla buur bi yen bu diis bii mu yenul maamam ja Cheikh Seydi Hadj Malick yàlla dimbalil ko ba lépp yeggee ci mébétam waaye di ndokkeel ma kom bu baax ma Cheikh Mouhamadoul Mountakha ibnu Cheikh Mouhamadoul Bachir moom itamit di ko ñaanal ci daraje lislaam waaye di jaar dem ba Kaolack nangaan di jaar sunu maam Chérif Makki Niass moom Mawlana Cheikh Ibrahim waaye di jaar di ziar xalifa Cap Vert di aseydi Abdoulahi Thiaw Laay ibnu Seyna Isa Roi Laay ibnu Seyna Imaam Allah di ziar mag ñi ci réew mi yëpp bàyyiwuñu kenn di wax ni rek bu ngeen déggee bayit yooyu xam ni tey ñoo ngi fii tey ci buqaa bu tedd di waajal liggéey bu tedd liggéey boo xam ne borom depuis 1904 la amoon mébét liggéeyal yàlla bërëb bu mu koy jaamoo liggéeyal yàlla bërëb bu mu koy toppee def ci lu mu man ak lu mu manul moo man ñu tedd ñooñu mu àndaloon ba doom ju tedd ji ko fi njëkk wóotu Seydil Boubacar si moom it jëf ci li mu man bàyyi fi ju baax jooju euh, Cheikh Mouhamadul Mansour bal xaw mi ñoom ñaar ñu ànd ci diir bu gàtt yàlla def li muy def Mawlaaya borom 40 ans zéro faute di maam Abdoul Aziz Sy Dabakh ñëw song liggéey bi moom itam gis ngeen appel yi mu ci defoon ak la mu ci jëfoon ba tey sunu sunu borom dogal tey ci ayuk Seydou Boubacar si mu woote tey liggéey bu tol nii woote projet bu tol nii woo taalibe yi nekk ci réew mi yëpp nekk tamit à travers la diaspora ngir fu waay mën a nekk tey ci àddina xam ne si Sidi Hadji Malick liggéey bi mu bëggoon li mu mëbatoon bërëb bi mu mëbatoon boromam nekk bërëb bu yàlla bërëb bu am illa bërëb bu taaru te nag ñu ñëw fas yéene ci def benn avant première ànd ci ak ki nga xamante ni que mooy sunu sëriñ sunu soppe Baye Cheikh Tidiane ànd ci ak ki nga xamante ne que mooy Baye Maodo Malick Faye moom tamit euh, ñu dénk ko mbiru architecture bi nga xam ni lépp lu war a taaral jumaa ji yàlla dimbali na ko ak kattanam tey ba mu war ci dugal loxoom xaar rek si Cheikh euh, ma bàyyi la rek nga nuyoog mbokki internautes yi lay seetaan sur Dakaractu أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نيغي نيو دي لين زياره دي نيو جولي تي سينغال دي نيو جولي تي ادونا بييب ا دي نيو مبوك انترنت ييغا خامتاني نيجي سيتان تاي تي داكار اكتو دي رافيتلو انفيتاسيون بي تي ليغا خامتاني تي نديغلو خليفه بي لا في نيويه سيرين بابكر سي منصور ميغا خامتاني مو ييكتي ليغي بو ام سولو jële ko ci ay baayam jële ko ci ay maamam tey ah ba ñu egsi ba ci jobbantal ba tey ah, yàlla def ñu ñëw toogal ko fii ngir waxtaan ak askan wi ci mm-hmm. lii nga xamante ni projet bu mag la mm-hmm. euh, sumb ko jëmale ko ci jumaa Tiwaawan mm-hmm. fa tabaarakallaa ah, di ñaan yàlla mbébét bii mu mbébét yàlla defal ko ci ndam defal ko ndam jullit ci àdduna bi yëpp ndax eh, yàlla moo ko wax ci alxuraan innal masaajid lillah jàkka yàllaa ko moom mhm. te moom rek lañ fay sàbbal moom rek lañ fay mhm. tudd wa mhm. la kon lii nga xamante ni mooy euh, jumaa ju mag ji Tiwaawan ji nga xamante ni moom la ñu mal liggéey bi dañuy ñaan yàlla mottali yéen a xalifa bi jaarale ko ci jullit yëpp nag wa tabarakalla leen sant ci invitation sëñ Maodo balaa ñuy euh, balancé waat dem seen Cheikh ñu bàyyi leen ñu ñu leen si tal si Dakaractu yëkkatal micro bi bu Babacar Sy mm-hmm. di suñu mag yu baax bi euh, Cheikh Ngom mi nga xam ne moo fi nekkoon architecte bu njëkk ci Sénégal mm-hmm. moom mi nga xam ne moom mu jëkkee jumaa ji ak la fa nekk yëpp mm-hmm. euh, àndoon ak euh, suñu wujur yu baax yi nga xam ne ñoo fi nekkoon jiite ko suñu Mawlana El Hadj Abdoulaye Daba ak rakkam sëñ Habib ñu dellu see nag ba si di sëñ Babacar Sy Mansour ñu ko yeggali Eh, ñu wutu fi suñu mag jooju seen doom man ak suma ak suma jigéen bi ñuy waxtaane lay sàmm di architecte man pour yegg li liggéey liggéey bi duñ ci mun ci wax mooy la fa nekk li nga xam ne El Hadj Cheikh Ngom moom la defoon muy bâtiment bi ci boppam eh, eh, jumaa ji fi mu nekk mu ngi nekk ci terrain boo xam ne vingt mille neuf cent et quelques mètres carrés ñu wax ñaari hectares dafa nekk ci bâtiment bi mooy lañ fa def moo tax ñu tudd ko travaux achèvement de la mosquée. Dina, dina, ñëw ci euh, ci hôtel, gi ñu xam liggéey bi fan ngeen ko fekkoon ak la ngeen ci indi ak meuble, bi lan la euh, sëñ Cheikh euh, balaa may xam naa sama laaj bu njëkk rek pourquoi avoir choisi du 14 septembre. waaw 14 septembre dafa nekk date bu symbolique. Mhm. ci Sénégal. Mhm. نقدر بسمبوليك آه، في طريقة تجانية آه، نقدر بسمبوليك في حضارة ملكية نخ نعم. سنو مام سنو سرين آه، منا وقت مام السنغال جيب سرين عبد العزيز دبا داتو 14 سبتمبر لا ген ادنا تي نيب خامني جمعه جي بان كاي مبهت ولا بوك اشيف ماي ولا ياتل ياتل جمعه جي بان كاي مبهت sëriñ Abdoul Aziz Dabakh moo nekkoon xalifa euh, tarixatu tijaniya ah ci moom la initiative bi départ ndax euh, ci histoire Seydi Hadj Malick ba mu jógee Makka wala boog ba mu demee Makka en 1988 ci la ñaanoon ca Kaaba ga yàlla na nga ma may ay barab yu may mën a jaamoo yàlla maak samay njaboot te mu yaatu lool ñaan googu la ko yàlla nangul ba lii nga xamante ne mooy jumaa Tiwaawan gi en 1903 mu mbëbët ko ndax jumaa ji mi ngi ko song liggéey bi 1903 mi ngi am autorisation en février 1903 liggéey bi mu ngi yàmb en 1904 yàlla mottalil ko yéeneem ci jumaa jooju waaye aussi ci jumaa yi ci Sénégal yu bari mhm. ah fa tabarakallah ba mu koy song euh, ñi ngi wax ni fa dooleen toll woon mu ànd ceek ay mag ñu dëkkoon Tivaouane mu nga tolloon ci cent soixante seize mètres carrés su ma juumul maanaam onze mètres ci seize mètres hmm. ah yàlla di def ba bi mu fiy jógee suñu maam Serigne Babacar Sy radiallahu taala anhu wuutu ko fi ñu dem ba 1940 ñu xam ni jumaa ji laaj na eh, yeesalaat hmm. ci la ci ñëk def loxo mom ànd ci rek rakkam Serigne Mansour bal qawmi bal qawmi ak jenn Seydou Nourou tal tabarakallah bi ñu demee ba 1957 yàlla def li gën mu ànd ak rakam ci ben semaine dem Serigne abdou Aziz Dabakh wutu len fi di doxal tariqa bi ci anam bu mu gëna a rafete 1976 ci la ñëk yëkëti batam jëmele ko ci yaatal jumaa ji ba 1979 lu woote bi ñëk لين كدف عند تيك أي رقم سري حبيب محمد حبيب سعد بمودو عند تيك أي دوم سري عبد العزيز الأمين سري الشيخ سري منصور أك سري بابكر سري منصور بي أك مولم جابوتو سيدي حاج مالك غير يين بسن مام امول شي دفر تخول جماعي تبام كاي طبخ بام كاي دفر mën na am yéeneem la amoon waaye am na fu dooleem yamoon ñu ne kat am nañu yéene tey yokk ko yaatal ko taarul ko ba mu méngoog jëmm ka nga xamante ni moom lañ koy defal waxuma waxuma Seydi Maalik de waaye Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye yàlla ci boppam mi nga xamante ni moom la ñuy taxawal jumaa ji mm-hmm. fa tabarakallah ah 1979 ah, kon ci lañ njëkk woote ci jumaa ji mm-hmm. woote ci woote bu njëkk ah, dénk ko aussi ah. ànd ceeg ay mbokki taalibe ànd ceeg ay ay yeneen i tarixa ndax ñi ngi wax ni woote ba mu koy woote du du ay tiyaan rek a fa nekkoon gannaaw suñu sëriñ yi nga xamante ne ñoo fi nekkoon muy Thierno Seydou Nourou euh, am na ku ñuy wax Cheikh Gaynde Fatma sëriñ Cheikh Gaynde Fatma ibnu Cheikh Mouhamadou Moustapha fekke woon na ko mm, mm. amoon na ay euh, ay ay ay yàlla mayoon euh, wërsëg ñu ñu ci àndaloon ku mel ni Djili Mbaye Hadj Djili mm. Mbaye boole ceeg boole mu jullit yi ngi ci Sénégal ngir mën a jëmmal lii nga xamante ni moom mooy jumaa Tiwaawan xam nga man la question que je me pose mooy dama ni góor gi am na bërëb yu mel noonu yu bari biir Tiwaawan boo xoolee zawiya bi nga xamante ne que moo nekkoon zawiya mais euh, portée bi mu am ak mbëggeel gi mu am ci ci pàkk boobu jàpp ni buqaatal mubaarak la ba defoon ci moom jot na fa julli waaw euh, jumaa Tiwaawan ji sëñ sëñ Hajj Malick ci boppam moo ko njëkk moo ko njëkk a jiite ba mu koy ubbi en deux euh, jumaa jañ fa njëkk jullee moom moo fa jiite waaye ci gannaaw ci la jël sëriñ Atoumane Ndiaye imam Atoumane Ndiaye moom mooy wa way juru Mamar Ndiaye bi nga xam ne ñu xamee ko ci Jeanne d'Arc euh, mu nekk yit ku dëngatu ci tarixa yi euh, moom moo fa moom la tegoon imam moo jiite jumaa ji ba 1946 su ma juumul ci la dëddu doomam sëñ Babacar Ndiaye eh, nekk fa imam amoon na nag yeneen i mag ñoo xamante ni ñoom la doon àndal ci jumaa jooju bu ñu kuñ ci ko am na mën nañ ci ràññee ku ñu wax Serigne Moussa Niang imam Moussa Niang ah, bari na ay ay mbokki ay mag ay magu xam-xam ay magu tarixa bi ñoo xamante ñoom la daan àndal ñu nekkoon ay ay imma nekk ci gannaawam mhm. eh, ba 2006 ci la eh, Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Tall Eh, nga xamante ni eh, moom ñëpp xammee nañ ko ci xam-xam ba tey moo nekk ci buntu ci ci ci kër jumaa ji fa tabarakallah kon mu nekk eh, taxawaay boo xamante ni pàkk boo xamante ni sëriñ bi ci boppam Seydi Hajj Malick moo ko taamul muy pàkk mu bëggaloon boppam mu bëggaloon boppam mhm. ba tax na lépp def nekk la nga xamante fa nga xam ne moom la tabaxoon en 1904 ba tey. Mhm. Euh, patrimoine historique la boo xamante ni kenn laalu ko. patrimoine historique la ba tey kenn laalu ko euh, Baye Maodo Malick euh, ku ne xam na ni liggéey bi am na am na taxawaay bu yàgg ak tey fi jamono toll est-ce que tey da ngeen ci fas yéene apporter ay yeneen mbiru yees yoo xamante ni que dafay man dafay méngoo ak ak la modernisation. dinañ dinañ def loolu ci li nga xam ne tabaxaguñ ko. Mhm. wante ñun it dañu am lu ñuy wax déontologie charte mooy suñu mag ji ma la wax Cheikh Ngom <coughs> mi ko def dafa am lu ñuy wax propriété intellectuelle ba tax na it euh, ni mu ko xalaatee doy nañu ba nga xam ne duñ ci changer lu bëri bâtiment bi fa nekk achèvement la laaj am na yeneen yoo ñu ko war a tabaxaat mu mengo ak la fa nekk

dañ ko bëgg a def musée. Mhm. fa mu ne bu waru fa jóge bâtiment bi ci boppam mu ngi koy wax ba mu nekkee gros œuvre ay 40 ans la ñuy wax léegi. Mhm. mais alhamdulilah rabbil alamin ba fa ingénieur rek bureau de contrôle yu seet demee gis nañ ne daanaka structure amul benn fissure. Mhm. la ca am nag mooy boo toogee 40 ans même kër yi. boo toogee ñaari yaat ñetti at boo amee étanchéité fa nga defaraat ko. loolu tax na ba am na fu ndox bi jaar. balaa boobu sooroor bi gis ngeen ko. mu ngi foofu war nañ ko terminer am na yeneen ñaari sooroor. yoo xam ne prévoir ko ci yokk yoo waaw ñu nga fa mu ngi woon ci projet bu njëkk bi. beneen bi it mooy bibliothèque boo xam ne war nañ ko ba pare. ak jumaawu jigéen ñi. ak yeneen toilette yoo xam ne dañ ko bëgg a def ngir sutura ngir mu bari it. demi sous-sol ba nga xam ne. ci suñu yéene bugg nañu sax bu gàmmu amee ñeneen ñi mun fa dem. loolu moy li nga xam mo moo fi ne pour le moment mhm. mais it ah suñu serigne bu baax bi serigne Babacar Sy Mansour amna na euh, <coughs> projet bo xam li mu bëgg moy def esplanade bu rëy a rëy bo rëy mhm. day bolé jàkke ak xabru yu nekk fofu yëpp mhm. ba nga xam ne diggu euh, Tiwaawan booleeg la fa nekk ci maison des autres place la bo xam nañ koy défaré mo xam assainissement mo xam euh, léral mo xam yëpp

96. 96 un an muy génn àdduna ci la def mm-hmm. appel bi gën a mag. Mm-hmm. maa ngi fàttaliku boobu suñu wayjur Seydi Abdou Aziz Al Amine doon porte parole mm-hmm. moom moo def discours inaugural bi ngir ñaax mbokki taalibe yi ñu ñëw dugal seen loxo ci liggéeyu yàlla boobu. 1996 donc mooy nekk mun naa wax euh, en tout cas peut bés ba nga xamante mooy gën a màgg ci laaju ci laaju jumaa ji ba euh, yàlla def at la ci teg. Euh, yàlla def li ci moom. muy ji boroomam. ah yeneen xalif généraux yi fi jaar yëpp Serigne Mansour borom daara ji moom tamit bi mu ñëwee ubbi na ko am na la mu ca jot a def Serigne Abdoul Aziz Al Amin ànd ceeg seen magam Serigne Cheikh Ahmed Tijani ñoom tamit bi ñu ñëwee ah amoon na mbébét boo xamante ni président de la République moo ko moo ko mbébétoon pour def ko ci waaye yéenee mujjul àgg ba bi sëriñ bi ngelawee sëriñ Babacar Sy Mansour yàlla indi ko teg ko ci boppu njaboot ji mu am yéene bu rëy woo ci ay mbokki taalibe daal di ne lii balaa maa kaa sumb bëgg naa Kep ku njabootu Seydi Hadj Malick te njabootu Seydi Hadj Malick dafa yaatu du sant si rek képp ku njabootu Seydi Hadj Malick bëgg naa laa boole ci liggéey mu xaddam yeeg muxaddam yeeg yeneen njaboot balaa fa tabarakallah moo ci la woo ay doomi kër gi dénk leen liggéey bi euh,

جميل سليم Babacar Serigne Cheikh bu Serigne Mansour Serigne Babacar Sy Al Amin mbooleem ku njab Serigne Hadj Malick njaboote ñu sant si ak ñu santul si mu ànd ci ak ñoom ci comité de pilotage boobu am nag ay doomi kër gi ñoo xamante ni xam-xam màcc na ci loolu ci loolu mu jël leen def leen jël ku ñuy wax Alhaji Makhtar Cissé ah dénk ko Euh, association bi ànd ceeg comme mhm. euh, Famara Sylla mhm. mi nga xamné tay mom moy secrétaire exécutif bi. ci lolu nak mu créer ay commission ñu am commission bi ñu wax commission des travaux dénk ko suñu euh, mag suñu xarit alage Bokar Ndiaye. Mhm. am ingénieur la jël commission des finances dénk ko Bokar Famara Sylla jël commission communication jox ko. Euh, Abdou Aziz Mbaye mii nga xamante ni moom mooy yore communication bi mm, mm. jël nag euh, comité suivi évaluation dénk ko ki nga xamante ni mooy doomam di El Hadj Malick Sarr mm. ñooñu ñooy ñi nga xamante ne ñoom la dénk liggéey bi ànd ca nag ba pare nag laaj ñu yaatal ko képp koo xamante ni am nga yéene nekk ci kër gi am xam-xam bi mbaa dayo gi mbaa doole ji nga ñëw dugal ci sa loxo ngir liggéeyu maama bi nga xamante ni moom la sumboon mm-hmm. ña eh, téeméeri at ci gannaaw. Hmm. yàlla defal ko mu mën koo mottali ci anam bu mu gën a rafet. yàlla defal ko mu gën ko mottali xam naa balaa may yeewee sëñ Maodo dama koy laaj laaj mujj tey liggéey bi bu ngeen ko songee eh, évaluer ngeen ci ban diir exactement eh, la war a toll maanaam ci wàllu temps un an deux ans trois ans ngeen livré jumaa Euh, pour évaluation par rapport li nga xamné mo fa né ñu war ko yeggale ak li ñu war tabax. bu matee at ak genn wàll du ko passer inshallah allah un an et demi mm-hmm. dañu nek ño xamné yit ñun dañuy joxoñ rek ñu top mm-hmm. amna euh, yéene bi ma la wax di sëriñ bi am fu mu ñu ci yóbbu rek ñu dem mais la fa nek ak lañu wara moytu lañu wara moteli a mottali. Mm-hmm. Euh, am nañ un an et demi mënu ko passé 18 mois mënoo ko passé incha allah. Mhm. jërëjëf sëñ Maodo Malick. xam naa ñu bàyyi bool yi rek euh, moom mu dugg si moom mi nga xamante ni que waaw moom moo moom moo yore plateforme bi nga xamante ni que moo jëm ci wàllu collecte euh, de fonds. Euh, moom tamit mu ñëw expliquer ñu mbir mi parce que mbir mi maanaam bu ñu xoolee surtout les sénégal de la diaspora seen yitt yëpp mooy naka la ñuy def tey ba jël seen seen wërsëg tàbbal ko ci tàbbal ko ci mbir mi. yow mi nga xam nag yaa yoroon mbir moomu bëgg nañu ñoom gaa ñi nga teg leen ci yoon boo xam ne buñ ci tegoo rek ñoom seen yéene mën a yegg. dëgg la dëgg la dëgg la jërë jërëjëf jërëjëf <coughs> li nga wax loolu la. li nu liggéey bi li nu si li nu si jàpp moo danoo bëggoon ku am yéene si jàkk ji rek nga mun ko def foo ti toll. ki nekk Sénégal ki nekk si étranger bi. ki nekk Dakar ki nekk Thiès ki nekk si àll bi. bi nu xalaatee noonu nag si la xool nu mu une plateforme numérique c'est-à-dire lo si ordinateur nga si smartphone téléphone wala si outils outil on va dire numérique pour que nga a sa plateforme bi c'est une plateforme qui est dalay ndax dina dana permettre yow mi nga xamni que da nga bëgg joxe sa xaliss par un compte bancaire di ko mun def yow mi nga xamni da nga bëgg joxe sa xaliss par carte bancaire di ko mun def yow mi nga xamni da nga bëgg joxe sa xaliss par Orange Money les transferts d'argent li ni wax le mobile money dans le cadre général di ko mun def yow mi aussi bëgg joxe sa xaliss parce que da nga ko bëgg déposer ci benn compte bancaire di ko mun def li ñu si yéene mooy foo mun loo mun foo munti moyen bu nek am nga moyen bo xam ne di nga mën joxe sa xaliss et de façon sécurisée. dañu manam dañu man dañu indiquer ay somme de cotisation comme ni chaque chaque talibé cheikh 1000 francs wala chaque talibé cheikh 2000 francs wala dañuy rek lu way am rek ak fi si yéene toll wala aussi ku am lolu ak lu ko montant amu si hmm. lu way am joxe lu fu sa yéene toll mun nga ko joxe.

kuy julit ak ku lu jullit sax té liggéey bi nek lo xam ne sa gis nga sa bopp mën nga joxe. Euh, bi ngeen tambalé ba léegi mën nañu xam exactement ñaata projet projet bu ci somme ak objectif bi lan objectif bi ñaata la quoi. Euh, lo loolu moom moom mooy sunu sunu sëriñ mu mu hmm. mu mu wax si. Euh, mais si wax bu gatt hmm. objectif amul. Hmm. limite am aussi euh, ñaata la ñu am instant yi xaalis duguna compte yi ñi koy yoré mun nañ ko wax dans le détail mais danoo tambalé comme ni nga ko waxee ni ko architecte bi waxee tout à l'heure danoo commencé les travaux d'achèvement su ñu wax achèvement moy amna lu commencé won donc xaalis duguna déjà mais dañ ko wara a et morteliko mottali ko Euh, sëñ Cheikh maanaam ku ne xam na ni euh, dajale xaalis yomb la euh, moom laa laaj boori léegi effectivement ma amul objectif maanaam xaalis bi du ñuy deux milliards lañ soxla l'essentiel mooy nañ jëf parce que ginnaaw édifice jumaa ji nii si Maodo waxee am na yeneen yu xalifa bi mébét ci lu wër jumaa jeeg wala esplanade fi jigéen ñi julleeg ak yu mel te xamaa naa ne yàgg yàgg institut ak yu mel ne ndox caawoon ak wàllu wàllu wàllu jàngale tey bu ñu doon xayma tey ci lu jot tey ci ci ressource waaw am na loo xamante ni dinaa mbay duma duma du ma jiitu ñi nga xam ne ñoom lañ dénk liggéey bi ndax tey ci guddi incha allah lañ war a def plateau bi gën mag ngir permettre nit ñi ñu indi sen contribution euh waye comme niko khalifa bi waxe li mbiru yu yàlla la waxna ko ci sama be ni euh wax ne yàlla moko wax innal masajid lillah jàkka wala juma ci mbiru yàlla la ku ci duggal sax al ci sa yoonu yàlla nga ko dugal ah yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tamit wax na ni ku ci dugal sa alal ci lu mu gën a tuuti yàlla dina la tawaxal kër ci àjjana kon waxuñu tijaan waxuñu murit waxuñu xaadar jullit bi la ñu wax jullit bi nga xamante ne am na yéeneem bëgg ko jox dugal ci yoonu yàlla ubbil nañ ko bunt boo xamante ni mën na cee defaroo Euh, euh, àdduna ak àllaaxira kooku bunt la pour moom euh, li ci des nag mooy app ba app bi li may wax jumaa du yegg mukk li ngay te Seydi Hadji Malick dafa am philosophie philosophie zawiya la am te bu ñu nee zawiya mooy dafay lieu de culte ñoo na maanaam fu ñuy jaamoo yàlla ñoo na waaye lieu d' éducation ñoo na mooy fu ñu war a jànge lieu sociale ñoo na fu nit ñi mën a daje lieu de culture ñoo na donc tey yi jumaa yi nga xamante ni moom la ñuy tabax dañoo bëgg mu am fonctionnalité lépp loo xamante ni euh, ka nga xamante ni moo ko mëbatoon muy Seydi Hadji Malick amoon na philosophie bi ñu mën ko faa ñu mën ko faa def te loolu nag amul app li li te te Tivaouane soxla na ay infrastructures yoo xamante ni yu bëri ñu ngi wax mbirum énergie solaire boo xamante ni moo war a yore loolu ñu ngi ci wàllu ñu ngi wax affaire infrastructure yaa ngi gis ni amoon na ay problème mu santé yu fi amoon loolu sax taxul jóg léegi lii nii nii waaye xam nañ ni ci loolu la ñu jëm ndax infrastructure yi nga xamante ni moom la Tivaouane soxla bëri na te lii mbëbët la rek boo xamante ni xalif bi yëkkati na ko Insya allah yeneen i projet ngi ci gannaaw amul app yeneen projet ngi ci gannaaw booli euh, maanaam mën nga ma jox ay quelques détails pour nga euh, bëgg nañu am accès ci plateforme bi fan la jaar wala ci numéro la jaar bu dee ci côté bancaire bi lan def mu gaaw la euh, plateforme bi daan allah suba siwiter, huit heures plateforme bi nak so, so si buggee egg da ngay dem sur adresse li adresse URL li euh, internet http 2. slash slash w la grande mosquée de Tivaouane site bi grande mosquée bi di nga bannière bi bannière les différents moyens de collecte c'est-à-dire soo fa egsee su la neexee nga tànn que yow da nga bugg joxe sa xaalis par carte bancaire su la neexee nga ne da da nga sa par les services de mobile money c'est-à-dire par Orange Money Free Money Wizall Wave yooyu ñoom ñëpp Ria ñoom ñëpp su la neexee aussi di nga gis numéro compte bancaire bi nga xam ni que foofu nga war a mën sa virement def sa virement pour bi egsi si compte association bi Le numéro de compte bancaire bi numéro de compte bancaire banque banque islamique hmm? numéro c'est 25 11 24 02 50 01 à partir de demain 8 heures bannière di lecture bi en tout cas numéro bi 25 11 24 02 50 01. mais vois le euh, sécurisation sécurisation mhm. surtout les du tu bari euh, parce que dañu dañu bari sur internet est-ce que jël ngeen matuwaay yeb ba ndar kep mbir ba du jaar am nañu ñi ci ci mhm. question bi nga poser amna solo trop. solo mhm. trop effectivement si li dafa dafa arnaque.

Mmh. ñooñu ñëpp sen xaliss bi ni liggéey ci sen ki mom moy sécuriser seen transaction mmh. amna nak benen société bo xam encore elle est encore plus grande mondialement connue qui s'appelle Worldline mmh, qui est une filiale de Atos mom moy assurer la sécurité de ces transactions. kon dal ni nga xamantene amna am def ci dal mën nañu ànd ak xel mu daal. am nañu si bu baax jere def jërëjëf euh, ba mom tamit gis ngeen mom mo yore walu plateforme la grande mosquée euh, xam nga de de Tivaouane. Euh, di ci di ci di ci ci liggéey moom tamit euh, liggéey bu liggéey bu liggéey bu am solo boo xamante ni que dégg comme ni nga ko waxee ci wàllu joxe bi euh, bu ci benn taalibe am xel ñaar du ma sax benn taalibe ndax day mel ni que damay ndar képp mbir mi bu ci benn doomu aadama bu ci xam bu ci benn doomu aadama am benn sikki sàkk si jeex tey appel bu mujj booy lancé àdduna ndax ginnaaw mbir mi suba la war a tàmbali incha allah. waaw xanaa di. ñaax suñu bopp d'abord di ñaax euh, mbokki taalibe yi ngir ñu dugal seen loxo ci mbiru yàlla dañuy wax démb ci benn euh, waxtaan ne bu doon xalifa bi kese kese kese moom li <coughs> tax koo jóg li ma ne euh, boppam taxu koo jóg mhm. waaye bëgg dimbali nit ñi mhm. ñu dugal seen alal ci yoonu yàlla moo tax mu yëkkati liggéey bi kon dañuy ñaax ñun d'abord suñu bopp ci lii nga xamante ni Euh, occasion la ni ko nit ci di waxee promotion la mm-hmm. ngir ñu mën a euh, ful suñu ay xasanaat mm-hmm. euh, li nga xamante ni defaru la fii ci àdduna mais aussi defaru la fële ca àllaaxira mm-hmm. ah ñuy ñaax suñu bopp ñaax mbokki taalibe yi ñaax képp koo xamante ni am nga loo xamante mën nga ko ci mën dugal ndax dañu ni xeebuñu dara yé yé yé yéemuwuñ ci dara it donc ku nekk fa nga la nga tollool muy dërëm muy ñaar fukk muy million muy milliard muy ay milliards sax ku ne la nga tollool nga mën nga ko cee dugal ndax Seydi Hadji Malick jar na ko yàlla mi nga xamante ne subhaanahu wa taala mi nga xamante ni mooy suñu borom ah, soxlawu ko waaye mën nañoo fay fulal ñu ko ay yooni yooni yoon ba ñu mën cee defaru suñu askan defaru ci suñuy doom defaru ci Sénégal gépp defaru ci fa tabarakallah kon dañuy woote appel eh, boo xamante ni c'est solennel Eh, woo ci suñu bopp d'abord képp koo xam ne doon man si mm-hmm. laa sant wala njaay laa sant wala mbàkke laa sant wala jóob xam ni mbir mbiru yàlla liggéeyu yàlla la ku nekk am nga ci wàll mm-hmm. nga xam ni war nga cee mën a dugal sa sa sa alal dugal ci sa doole mm-hmm. en nature wala en en incha allah yàlla dina la fay loolu di ci ñaax ñëpp yàlla na ko yàlla mottal yi yàlla bàyyi fi xalifa bi ba lii nga xamante ni moom la mbëbët yàlla def bu ñu koy inauguré mu jiite ñun ñëpp incha allah. jërëjëf euh, Baye Cheikh Ahmad Tidiane jërëjëf euh, sëñ Boliba euh, appel baa ngi noonu damay wax ni Seydil Babacar Sy ni ko sëñ Cheikh waxee rek ci tàmbali gi yàlla dimbali ko ba mu tombeek lu mel nii kon dañuy ñaan yàlla mu yeggee ci kanamam ñu di ko inauguré ba ànd ak moom julli at àjjuma mu jiite jaam ñi wala jullit yi dama wax ni maamam Cheikh Seydil Hadji Malick moko tàmbale won ni ko sëñ Cheikh waxee ci 1903 jot autorisation ba 1904 mu def ci lu man sëriñ Babacar Sy radiyallahu anhu ànd càkk rakam ju tedd jël Cheikh Abdoul Mansour bal qawmi tar ak def ci ñom tamit lañu man ba fassen seen ba fassen doleyam waye Moulay Abdoul Aziz Dabakh juma di nekkon léppam juma di jaralon ko lu ne jëf na ci ba jëf ci lu mu manul woote na ci ba wooteem bi mujj en 1996 ñu teg ci diir bu gàtt mu ñibbi aljana fekk bàyyam ba Seex Sidi Aj Maalik kon mbir maa ngi noonu dama wax ni wooteb yàlla la mbir maa ngi noonu wooteb lislaam la waaye du ñu toog mukk ci lu mel nii te gërëmuñu Abdoul Aziz Aly Ndiaye mébétam yëpp lii rek la woon mébétam yëpp projet bi projet bi rek la woon maa ngi rappelé wu gàmmuk daaw jéej bi ñu toogee ci lu mel nii la ñu waxtaanee muy mébét boo xam ne daf ko bokk ak jullit yi waaye mébét boo xam ne daf ko bokki ak taalibe yi kon di ñaan yàlla yàlla nañ ci yàlla defal ndam ba mébét bi ci bi ci xalifa bi am nga xam ne mébétu lislaam la mébétu nit ku baax la daraja lislaam la ak yëkkati ko ak ñoŋal ko